jaay doole da cee am waaw non moom kay lépp jaay doole la sax. waaw jaay doole la du début à la fin. Mhm. man li ma gëm mooy euh, Djibril War nekkul ne moom moo yóbbu prison Cheikh Oumar Diagne. dañu profité ci mbiri euh, Djibril War pour indi dossier bi yóbbu ko kaso. Sénégal nañu ma wax fii kan lañu fi mës a porter pour diffamation ñu yóbbu la instruction yóbbu la prison nañ ma ko wax kenn rek benn exemple donc dañu ko jaay véritablement doole Cheikh Oumar Diagne lu mu wax par rapport ak PGA PGA anglais la en français mooy action mondiale des parlementaire soo tapee Google tout de suite nga gis ko lu existe la sànq bi ñuy def émission keppaar gi maa ngi préciser ne ñoom nekkul ne dañuy jóg pour xeex euh, pour pour ñu euh, légaliser homosexualité loolu du seen combat mais ci seeni combat la bokk xaw ma ndax yaa ngi comprendre ou pas dafa bokk ci seeni combat très bien ñoom dañuy woote par par exemple ñu ne député yi nga xamante ne nii ñu ngi ci àdduna bi ñi nga xamante ne nii jàpp nañ ne war nañu mun a booloo pour ñu xeex cause démocratie ak droit de l'homme mhm. dañuy ànd ci loolu soo demee ci seen site mu Moustapha Niasse ci boppam ah ñu ngi koy décorer nii jox ko ab raaya. photo photo PGA PGA yooyu. Mm-hmm. donc Cheikh Oumar Diagne lu mu wax effectivement c'est la vérité parce que Sénégal bokk na ci groupement boobu. Mm-hmm. léegi nag pourquoi ñu dem ba benn instant ñu ne euh, diw porté na ko plainte woo nañu ko def nañu euh, euh, déglu nañu ko mandat de dépôt. loolu moom mënul weesu jaay doole te xam nga Cheikh Oumar Diagne dafa nekk di tenir discours boo xamante ne nii dafa metti gouvernement bi on se rappelle au lendemain des élections locales le président de la république dafa def une sortie teg ay imaamam wax am lu mu wax dem ba jàpp na élection locale yi su ko pertee ci yenn dëkku diine yi mhm. c'est parce que propagande homosexualité la ñenn ñi doon def mhm. mais ñooñu mënoo cee génn Cheikh Oumar Diagne donc président la république wax loo xamante ne nii ñi nga xamante ni bokk nañu ci ànd sàmm jikko yi da leen di viser je pense que depuis boobu mun nañu jàpp ne ñii gën a fës ci télévision yi di wax di di di di di di woote pour que Sénégal ñu euh, euh, euh, criminaliser homosexualité ñoom ñëpp ils étaient en danger Abdou Karim Gueye mii saa bërki démboo Njaay lañ ko mujj jàpp toroxal ko mhm. Cheikh Oumar Diagne demuloon ca manifestation mais bu fa demoon ce serait la même chose donc mu nekk loo xamante ni au Sénégal il faut que ñu am le courage de le dire képp koo xamante ni yaa ngi toog ci plateau télévision di wax loo xamante ni àndul ak gouvernement bi àndul ak le président Macky Sall ci ay jafe-jafe ngay nekk erreur boo def des fois sax doo def erreur ñoom ñooy créer seeni propre problème pour dugal la ci guuta loolu moo dal Cheikh Oumar Diagne te il faut le dénoncer man je ne suis pas d'accord ak certaines de ses positions mais man lu ma gëm ba jàpp ko mooy que lu muy xeex mooy dëgg la pour Sénégal te bu demee ba loolu tolof tof fekk ko ci dañu war a taxaw dénoncer ko